mbokk yi mbokk jullit yi téléspectateurs yi nga xam ne ñooy suivre seen télévision Safina TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax macha allah di leen ñaanal jàmm sutura xéewal mbégte waaye di nuyu tabaarakallahu sunu sëriñ sunu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa général di Tijaan ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ci daraje nabil Moustapha sallallahu alayhi wasallam jàll ba tabaarakallahu Louga fekk sunu baay Thierno Bachir Tall. ziyaar ko bu baax ñaanal ko yàlla yal na yàlla guddal fanam yokk wéram ci daraje sayyiduna muhammad salaa sallam noonu la ñu nuyoo sëriñ Muntaqa Mbàkke tabaarakallah ak mbooleem kilifa diine yi nekk ci biir réew mi di Sénégal fa tabaarakallahu ñu dellusiwaat ak yéen nag seen émission Madhoun Nabi émission bi nga xam ne fii la ñuy tàggee sayyiduna muhammad salaa sallam waaye di fi waxtaane ay jikkoom ak njàngaleem macha allahu taala tey nag ñu dalal sunu soppe sunu xarit alxaaji Daawda Mbeng tabaarakallahu di surtout maam Abdoulaye Mbeng di nabiyen bu mag macha allahu taala di dem fu nekk di tagg sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd koog sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Silla macha taala ak xaaj Ousmane Top ñoom la ñuy invité tey seen plateau incha allahu taala ñu bàyyi xaaj Daawda daal di nuyoo incha allah bu ñu noppee nag dugg ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp jox ñëpp a mm. ci dalal gi di nuyu euh, suñu waajur yi di leen ziyaara baax a baax di nuyu sama gars baax yi ma fekk si di nuyu suñu suñu sëriñ suñu mag suñu lépp Habib Sall mm-hmm. ak wax xadara bi yëpp ñu ngi leen di nuyu wax di di nuyu soppee Oustaz Pape Amadou Diouf su ñëpp waaw bàyyiwoon kenn di nuyu suñu suñu benn jigéen bu baax di ñu ko wax soxna Ndeye Touré ñu ngi koy ziyaar baax di ko jox wàccoon baax a baax a baax waaw di nuyu xaaji Mansour kenn moom tamit yàlla xam ne loolu ku sonn la si ñun waaw di nuyu waa xadara bi yëpp rek ndax bu ñu waxee waa xadara bi rek kon bàyyiwuñ kenn waaw seet naa Oustaz Habib Sall bu sëtu Abba Sall bu Louga moom moom moom moo jiite xa loolu wàllu wàllu xadara bi kon moom bu ñu ko nuyoo rek yaakaar naa yóbbu na ñëpp géew waaw di ziar ñu jox ñu seen wàcce baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh xaj daaw da macha allah am na solo نيوبي غاتنا واي ماتالنا فتبارك الله يالنا يالا باركيل حاج داودا آه، تاينا دانيو بغنا nga بيغال تريسبكتاتور ييغا خامنا نيوي بيغي سفينا تي في nga خامنا ايميشن بي دولان لاو ني بغنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمحمد وببنته وببعلها الشتين أعلى بالهدى النبي صلى الله عليه بمحمد وببنته وببعلها وابنهم السبتين أعلى بالهدى وابني مصيبتين أعلى هدى النبي وبشعبه وتابعين لهم فهم صاداتنا أهل المكارم والندى فرزخان يا خير من مال العزاء إلى اليداء النبي وريكم المسلمين وكربوا يا خير من مال العزاء إلى اليداء جعلنا من كل ضيق مخرجا قلت بنا يا من إليه المرجعون نبي اجعلنا بالله من كل ضيق مخرجا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 دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدى مولاي صلي ظالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم موجود وأوجد مهدوم صلاة دواما من ليس تنأسر مولاي صلي وظالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحاسي بالمصطفى المجتبى خير الأنام وجلالة النذا في مدح السورة ثم على مختار ما تلا شمس النهار وما القمر ثم رداء الأبي من خليفته أنغام من بعده في الدين ينتظر وأنا أبي حسن فاروق سعيده من قوله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 خير الخلق كلهم أنا علي أبيه وأمه ما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف من طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة الغرر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 دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت كريم والكريم عندك ها إلى بابي يأمن على كل نعمة صلى الله عليه وسلم فأنت كريم آه. الإحسان فهنا عبد الجهباني التي إمام موله رب بدالي أنه ليس مرب سوى ذلك الكلام إليك بالفضل والباغة تغفر لي يا رب من كل صلاتي إمام مبرور فبين بمولاي بمسجد سيد الحقير الموت رئيس سيدتي يا قيوم غيري يا طيور ويا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية بالأنبياء ومنه علينا وبحسن ختام خير سياج والمولى شوقي والهوى ألما ألما وجدان يا لبي

خاتم الأنبياء النور علينا وبحسن ختامه yal na ko yàlla nangu ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaaj Dawda ah tey na da ngaa burdu te weer wi weeru burdu la période bi période burdu la jamono ji jamonoy burdu la lépp burdu la burdu nag dafa doon woy boo xam ne woy bu barkeel la li tax mu barke Muhammadul Busheeri yi day taalif burdu ba yegg ci fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun mu daal di tag mootu la continuer xamul lu mu ciy teg ndax boobu gëlëm na ci xaqiqatul muhammadiya yonent yàlla Muhammad feeñu ko نيكو تيم لاكو ييغالل منو من هو أنه وانه خير خلق الله كلهم خمو لاماي لان دنا فا مبلغ العلم جوت داي خام خام فيه تي رسول الله انه بشر مانام موم ميديف لا موم سيدنا محمد نيت لا دو جن دو ملائكه واي نيت لا يوتي نك نيكو واي واي نك وانه خير خلق الله كلهم واي نك موم رسول الله مي نيت لا دي waaye lu yàlla bind na moo ci gën waaw téere boo xam ne yéen ci yàlla Muhammad da caa participé téere boobu ëpp na bàyyi gannaaw moo tax sunu maam Xaaj Maalik kenn xamul lu mu doon borom téere bi nag bi muy tàmbale téere bi daf ko tàmbalee amin tazakkuri jiraanin bi zi salami mazajta damaan jara min moqlatin bi dami suñ Moussa borom daara ji su ma saan toog ci jimaay suñ Babacar bi jàkkaarloo écran bi naan amin tazakkuri ji raarin bi di salami mazajta dam'an jara min muqlatin bi dami mawlaya salli wa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 teg benn bi ci kanamam di wax moom nan ko ama zajta damaan jara min muqlatin bi damin am habati riixu min tilqaai kaasimatin mu ne ko ndax yow dangay jël ronqooñ jaxase kook deret muy sotti te dara waralu ko lu rek min tazakkuri jiiraani ngi fàttaliku ko ay dëkkandoo hmm? moo tax ngay jooy ba sa bët yi amatul ronqoñ ji génne deret nii hmm? moom mooy waxal bopom lay waxal de am habati rih min tilqaai kaasima wala bok sax bërëb bu wax kaasima dafa am ngelaw mu fa baye ko fi romb le feul la ba tax sax xel dem ci sa ngay tok di joy bay soti deret ni aw madal barqu fi zalmaa min idam wala bok ba ngeen nekkee ci bërëb wax idam mu lëndëm kris mu jek jek am ben melax bu ne ray leral ba ngeen gisante jëm yi commencé gisante ndax lolou ngay fatlik ba tax ngay joy Hmm? fa maa li aynayka in qulta takfufa hamata wa maa li in qulta tastaxiq yahimi waaye dama lay laaj lan moo nekk ci sa bët yi lan moo la dal ba buñ la waxee noppi rek ngay gën di jooy lan moo nekk ci sa xol bi ba buñ la waxee dalal ngay gën di gëlëm lu xew hmm? ma koy posé question ba tey moom mu ngi nëbb cofeel gi mu am ci rasulillahi ba tax muy jooy di wow di jeex han beuti di joy ba amatul ronkon ci commencé gëné deret mu ngi jéemoon na bu ciofel gi di réelal nit ñi waaye nak a yaxsabu sabu anna al xubba munkatimun ma bayna munsajimin min huwa muttarim mu ne ko ndax ciofel ndax ciofel manes nañ ko neub ginaaw ba nga xamé né sa beut yang koy wané sa yaram ba koy wané kula xol ni ngay joyé xamna né amna am lu tax ngay jooy kula xol ni ngay jéxé ni xamne amna loy na xalaat ba tax nga jeex lu xew hmm wa jangi neub batay de mu melni ni adara xewul ne buñu fonto law lal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqta li zikril bani wal alami budu won ak banex kat do fi joy ni ba sa ronkoo ñi melni tawba ba ba loral fi hmm budu won ak ciofel do joy ba sa lekh yi ronkoñ yi marqué fi ndax garabu baan ak alam garab gu bu xonq la ak bu zone nit ku weex nit ku weex ba dee jooy ronkoñ yi bu tra bu bu dee wadd da jox couleur bu zone ak bu ak bu rouge léegi nag jooy yu bari yooyu muy jooy ba mu ba mu joxe couleur bu zone beeg bu rouge bi moom moom lay misaal mu ne bu woon ak bànneex kon doo jooy ba yegg ci xaal bi hmm. aaw yaa laa imi fi l hawa al uzri maaziratan minni ilayka فكيف فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي واو دا ماي لاج ليغ ناك غاي نوبي تيوفيل غو خامني سا بت يي نيوكو نجيكا واني ها اك سا يارام بي نوكاي ودي محمد بشير واخ نيو خيو جاتنا ناك محمد البشير واخ لي خيو منا نيهو با نيهو واي كيما بغ موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم lii mooy xësal moom la moom la mag ñi di utiliser lu bari li waral nag xësal am solo mooy nit yàlla wala nit ku baax wala ab yonent boo koy tagg waroo tëb tëb dal ci kawam soo tëbee tëb dal ci kawam day mel da nga koo sàllawlu kon nag war def lu ñu tuddee xësal mu ngi mel ni président Macky Sall rek ma ñëw ne ko Macky Sall hmm? la war a wax son excellence monsieur le président Alaaji Macky Sall jox ko ko gàtt dayoom jox ko gëddam jox ko léppam jox ko wàccu waayam anzilin naasa manazilakum njol màkka ne nit ku nekk wàcce ko wàccu waayam kon nag loolu moo jaadu moo tax Mouhamadou Bachir yi téere bi mu njëkk a taalif muy euh, Hamziya dafa tëb rek dal ci rasulillah ba mu fa jógee feebar bi mu feebaree nag ci la woye burdu bi commencé ko xësal burdu dafa jeex rek mu wér motax amna ñu wax ci borom xam-xam yi ne waru koon tuddee burdu xam nga burdu moy firi mbubb manto ñi di wax ne ko ko waroon tudé buru buru bi fiir wér mo la mo la waroon tudé téré bi waaw ndax da bi di ko woy rek da di wér wa motax tax xësal am na solo moo tax alaaji Mansuur ca yaa iyaam ba muy woy sayduna Muhammad salaa sallam nga dégg ko mu araftu li salma bil yafa'i maghaniya غدت للصواري المعصرات البوالية وقفت بها خيرانا من لاعج الأسى أكاتم ظفرات الجوانح باكية أصائلها عن أهلها أين يمموا فصم صداها أن تجيب المنادية وكيف يجيب القول رسم معفر عفت آيه إلا السلاسل الأصافية وإلا رمادا دارسا متقطعا كخط كتابي يخط المسانية عهدت بها خورا أوانس حردا تهادي إلى أدنى البيوت هادية يلسن على أغصان بان بروضها ويبسمن عنك الأقحوان مواضيا فيا لك من دور عرفت عهودها صحبت بها زيل الصبيبة الضافية صحبت بها سم الأنوف جحا جحا أنازعهم كأس الصبابة الضافية فدع عنك ذاك الدهر واندب حواليا من العمر فيها قد أطعت الملاهية أدعت من العمر من غير طائل ولن تنتبه حتى أتى السيب جائيا لعل لذيذ العمر في زمن السبا يكفره أني أقمت الليالي بتيبة بين القبر أنقع غلتي ومن برح حيروس لأتلو كتابيا لدى مدجع شمس الحقيقة قد حوى أنار لنا أفق الهدى والدياجيا أدافع نار الشوق تلزع من هوا حاشايا وأجري من سوء مائيا من فلما دانونا loolu lépp mu mu boros li ko taxoon jóg rek muy falam maa dana woon ba ñu jege aha dana sitru mille neuf cent quarante quatre la aji màkk ma alaaji Mansuur nee bi ma jubbee raw du rasulillahi nee kiiraay yi dafa dafa dégagé kiiraay yi leeru rasulillahi dugg sama xol ne lu nekkoon ci man ci njàqare dégagé ma jeex takk ci rasulillahi xam dëgg-dëgg Seydina Muhammad moo tax mu ne falam maa danoo naa ba ñu jege min sanal badri ci leeraayu weer wii di rasulillahi wan jalaala écarté dégagé na lanaa ñeen lu dégagé man asitru kiiraay xatta zaala ba deñ maa biyaa la nekkoon ci ñun ñun mujj ci njàqare rasulun nee na nag ci laa xamee Seydina Muhammad joxar bi ko ne ko kii rasulun yàlla ko yónni kii may joobee ku ñu sant la وكيمي جوبي حامد موسط برمم محمد محمد محمد رسول الله والذين معه اسد داو على الكفار نبي صلى فوق سباكين السامية نبي سما بو حمد كوينا فوق السماكين بغنا كوينا ناري بدو يغنا كوينا موي بدو اعزال اقرامي كلن جنا كوي على جمل سورني نمو رسول الله دجل إيه، على جمل سورني بيوم الخيامة كن ركع أم كرت مو سيدنا محمد نيسان شو تجاني مو تعالج مو سورني يوصل له Desna na kerlu ëllëg bi zillihi ci maka, moom njol màkka waaye yëmunu day maye mom rasulillahi way bila man ninte do la ñaax wayen fii dafay al maasiya moy yalla njol makka bu la mayee doo too dara dalay may lu bari way du la may bu nopi nak naan ma fi jaar mukk du ko def mom rasulillahi way soko bëgg alaaji mu sunne do to mooy yalla gis nga tedd nga xaaj dawda ci njol makka la fekk bax jëmi tedd nga moy rasulillahi gis nga ki deug ki war a ndam mooy Seydina Muhammad ndax lu yàlla bind moo tax alaaji Mansuur ne dëgg-dëgg sang piir mooy rasulillahi ndax laqad saada man yaati kama saada man mada njool màkka yaa leen gën ña paase ak ñi bëgg a ñëw ñëpp seen sang mooy rasulillahi kon mooy sang bi huwa muntaha majdan wa fakhran wa suqdadan moy sang bi huwa murtaja mom lañu yakar kagn yow mo yusibu nawasiya bis ba nga xamé ne day gis ku dekki tiitaange bi jàppale ba nga bi jaw ci sens yi ëllëg bis bobu ki yakar moy rasulullah Cheikh Tidiane Mbaye yëg na ñëpp a alamul arwah ruh yëpp a way li tax aha dellu si waatal wa awwalu man labba wa awwalu man bi rabbikum hmm. dama laa wax ne la ruux yëpp ñoo maase ca aalamul arwaax ruux yëpp a maase li tax ñuy judd ñu ñëw par benn par benn dañoo bëgg ñu mën a dund dund gu baax ñu joxante ci respectante bu ko defee dund gi mën a stable بوكا دافي خالي وارمان مان مان ييرم خالي وا بولي سي عالم الارواح روحي كوماسي كلام نا سي عالم الارواح بي يالا تيمي روح ييب نيت الست بربكم خنا ما دوما سين بوروم روح رسول الله مو نيك جوك نبلا يا ربي روح ييب داف سي غنا بلا يا ربي بلا يا ربي بلا يا ربي مر علاج مسورني واول من لبى كان جيك واخ لبيك alastu bi rabbikum ba yàlla ne xanaa du ma seen borom huwa ruuxu mooy ruuxu sayyidina Muhammad wa rahmaan nabi waaw yàlla woo moo woo sayyidina Muhammad mu wuyu ko moom yàlla moom sayyidina Muhammad xool loolu rek nee na wa kaana nekk na moom rasulillah nabiyan di ab yonent waye aliman muy aji xam bin bi wut ci nubuwaam ta bobu wa adamu bayna al maai wa tiini bi ñu ban ak ndox mon ci mam adama ba defal ko bam nek nit nek ab estati ken dafa gu ci mom roh bobu la sayyiduna Muhammad xamne moy mooy khatimul anbiya moy doon imamul mursalin rasulillah لدى من حجاب نورك الحجاب alaaji Mansour nee na ca kiiraay leer ya hmm. kaana nekk na xijaabuhu di ay kiiraayam abil kibriya wal is asbaha baqiya gis na am na kiiraay bu ñu tuddee kibriya ak kiiraay bu ñu tuddee is te mooy màgg ak tedd nga asbaha mujj nañu baqiya di des ci jëmmi rasulillahi ndax moo nekkoon ca kiiraaya di jàmm boromam lahul hamdu li jaaru jalla jalaalu kon nag lahu ñeen la Seydina Muhammad alhamdu cant walim daa min fadlil muni inawahiya xaaj daaw da xam nga dafa am ñaari xéewal muy neexmatul ijaat ak neexmatul imdaad neexmatul ijaat mooy amal gi ñu yàlla amal tawarul yàlla war nañ cee sant yàlla neexmatul imdaad nag mooy tëbb gi ñu yàlla tëbb ci leer rasul war nañ cee sant yàlla alaaji mun suur ne lahul hamdu wal ijaadu war nañ koo sant moom yool màkka ci amal gi ñu yàlla amal ci barkeem te waru ko woon walim daadu war nañ ci tëbb gi ñu yàlla tëbb ci leeram moom Seydina Muhammad alaaji maa ngi ne zil ijaadi wal qidami mumidina bi wujudi ba di wa min samaniya til ayabi jaba لم يدها ولم يانا ومن سمانية تلك آيا بجاب على تلك المسافات لم يدها ولم يانا ومن سمانية تلك آيا بجاب على تلك المسافات لم يدها ولم يانا ومن سمانية الآية بجاب على تلك المسافات لم يدها ولم يانا الحمد لله ذي الإيجاد والخدم مؤمنين بالوجود البدر ذي الخدم ومن سمانية الأيام جاب على تلك المسافات لم يدهب ولم ينام صلاة تسليم يفوق على مسك ولا دنع لازي الفضل والقدم ومن صوانية الأيام جاب على تلك المسافات لم يدهم ولم ينام الموتى دين الخيرة الكرماء المعتمسين المختار والخدم ومن صمانية في الأيام جاء على تلك المسافات لم يدها ولم يدهى ndeysaan xam nga mag ñi dañoo baax ñoom ñëpp xam na ne Seydina Muhammad mooy bunt yàlla للمسلمين نجاة nga xasida boobu xasida bu yéeme la da nga ciy jàngee kan mooy Seydina Muhammad waaye jàngee ci Seydina Muhammad ëllëg taxawaayam ci kanamu jaabi ubbuta hali mujrima jaatun abdu nee na alaaj abdu nee na soo bëggee bu ëllëgee lu sa bàkkaar bari bari yàlla jéggal la nee na na nga bëgg Seydina Muhammad wa amaanun min xawli yowmal lixaa'i nee na yowmal xiyaam bu ñu taxawee ci kanam borom bi bul fàttali nag yowmal xiyaam bu ñuy bu bu yàlla bu malaayka bu ëffee buftu ba ba nit ñiy dekki ngay gis ñu toj ci bàmmeel yi mel ni gerte go jiwon ba mu taw ba commencé sax ni mbëkkee suuf si di genn gars non noonu genné seen mais suñu genné seen bir biir yalla day ubbi asman juróom-ñaar su ubbee asman juróom-ñaar malaayka yi dañuy wàcc ah bu malaayka yi wàccee nak nit ñi dañuy sappé jinne yi wër nit ñi malaayka yi wër jinne yi xam nga kenn amul fooy jaar yalla keroog day day sepp jaam yi di ñu xool moom yàlla keroog la naan li nil mulkul yawma kan moy bur tay gaa ñi ne teg kenn du tontu buur yi bari yi ngay dégg yépp kenn du ci ŋaa yàlla posé question ba muy trois fois kenn wuyuwul mu ne li ma nil mulkul yowma lillahi lwaahidul qahaar tey man yàlla man rek maa fiy buur ku dul man du buur bis boobu jant bi day wàcc tàngoor bi jéggi dayoo ñëpp jàq ñëpp tiit kenn xamul foo jaar bis boobu nag ki ñu yaakaar kenn la muy Seydina Muhammad alaaji Abdu ne bis boobu nag la muy garaaw garaaw garaaw la muy yéeme yéeme yéeme wa amaanul sécurité la min hawli yowmi ci ki nga xam ne daa bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna ubba nabi xalata laxmi wa izami wa damma wa damma duna riyai alaaji abdu day wone foofu moom ni mu bëggee njol màkka xam nga bëgg sayduna muhammad gars yi dañ cee rawante ay degré waaye alaaji abdu nee man ni ma bëggee rasulillahi yegg na ci ne soo xoolee sama yàpp bii njol màkka lay saf sama deret ji daw ci biir njol màkka lay saf sama yax yi soo ko tojoon bëgg rasulilah nga ci fekk sama yuur gi boo ko vérifié woon bëgg Seydina xam nga ci fekk moo tax Alaaji Abdu su ma sànne feebar du dem hôpital day wax day wax Abdou Aziz Mbaye ko taggal ma Seydina xam ne mu taggal ko njool màkk mu wér kooku dimanche Alaaji Abdu ne haaja yëngu na sawqi sama cofeel li xubbi xayril baraaya jëm ci bëgg ki nga xam ne nag lu yàlla bind moo ci gën mu kooku mooy feeñuwaay ñeewant dañuy gis naan diw dafa am ñeewant waaye ku am ñeewant ku ne mm. ki la ko mooy njol maaka waaye ku tedd ku ne it ki la gën a tedd mooy Seydina Muhammad sajil mursalina haadil baraya xaj daaw da alaaj abdu mm. mooy rasulillahi mm. waaye haadil baraya kii gindi jaami yóbbu leen ci yàlla mooy Seydina Muhammad xoolal li jëme leen ci ngër mand yàlla kii xëcc jaam yëpp jëme leen ci ngër mand yàlla ndax bëri na ko woote mhm. ba pare sànq nit ñi waaye nag ki woo nit ñi mhm. ba pare leen yóbbu leen ci ngër mand yàlla alaaji abdu nee na muy sayyiduna muhammad soo ko xamul nag man la waalidu zahra yi mooy bàyyi faatu bintu rasul ndax fatima njol màkk da daa wax naan fatimatun bidaatun minni mhm. fatima dogit la ci man njol màkk juróom-ñaara doom la am waaye nag boo alaaji Maalik nee na batulun laha zaydun min an niami xam nga am na doom bu ñuy wax Qaasim am ku ñuy wax Abdallah am ku ñuy wax Ibrahim Fatima Zeynab Roqaya Umu Kalsoom waaye nag Fatima mii dafa am ndollant xam nga li ndollant la yàlla moo jël pom ca pom pomi aljana ya mm. jox ko jibril kado mm. ne ko joxal ma ko rasulillahi mm. joon màkka lekk pom boobu pom boobu nag moo meññi Fatima ah. ndax bul fàtte nit la koy meññi ci ñam lay jógee ah. moo tax boo sàccee lekk mën nga am doom juy boo tiriyaandee lekk boo amee doom mën na nekk tiriyaankat de ah. moo tax nit ki li muy dundee dafa war a dafa war a dagan ndax ëllëg bu ci amee doom doom jamono mel la mu war a mel waaye bu fekkee da dundee loo xam ne baaxul boo ci amee doom àdduna tukki léegi nag pom boobu nga xam ne moo meññi Fatima te pom bu muy bàyyee ko aljanna moo tax Fatima daaw gis régal moo tax Fatima tamit gënoon ci mbooleen doomu Seydina Muhammad yi moo tax moom la ñu dénk Seydina Aliyu ku ne bëggoon na ko nag waaye nag Seydina Aliyu faat yàlla moo takk sëy bi ca kaw aras ca kaw aras la yàlla takkee diggante Fatima ak Seydina Aliyu ba pare wax ko rasulillah moo tax Abubakar mu ko bëggee Seydina Muhammad bañ Omar bëgg ko Seydina Mohamed bañ parce que Seydina Ali la ko dencaloon Fatima ak Seydina ak Seydina Ali bi ñu àndee nag hmm. surafaaw yi ngay gis ci la ñuy juddoo ndax njool màkka su amoon doom bu góor hmm. doom ba mënul doon lu ñu yonent moo tax yàlla teel a rey ay doom yu góor bàyyi ko ay doom yu jigéen waaye nag doom yu jigéen yooyu nag comme moom ak Seydina Ali ñoo bokk deret ñu ànd am ci sët yii mooy Ousseynou ak Assane Assane mooy maam Cheikh Tidiane Ousseynou mooy maam Abdul Xaadir Jeylaani tey surafa yi ngi gis yëpp foofu lañ bàyyeekoo moo tax moo tax Fatima kenn xamul lu mu doon alaaja du ne xubbu taaha hmm. sopp Seydina Muhammad nabi kii yàlla solo fardi mooy sama farata mooy sama naafila wasaraabi def naa ko sax muy ndox mi may naan wa munyati waay waay def naa ko muy sama bét wa xisaa'i def naa ko muy sama dund wa bayti def naa ko muy néeg bi may fanaan wa zamzami def naa ko muy sama ndoxu zamzam xatiimi def naa ko muy sama xatiim wa maqaami def naa ko muy sama maqaam ibrahim def naa ko muy sama marwa wa safaa'i def naa ko muy sama safa tamay safa ak marwa xarami def naa ko muy sama xaram mashaari def naa ko muy sama mashaar def naa ko muy sama misaab def naa ko muy sama rukkun yaman def naa ko muy sama xajar aswad def naa ko muy sama qibla waaye def naa ko muy sama xaaru xira waay waay waay wax xool ajab xoolal yedd gis nga alaaj daa bëgg njool màkka cofeel gay lëmba yaatu ba mu bëggaale màkka bëggaale madina ak bërëb yi ma tudd fii yëpp moom faf bëggaale leen ngir bëgg gi mu bëgg rasulillah moo tax mu ne laa talum ni bul ma yedd ndax fa inna ni man fii xuyaami dama damaa gëlëm ci bëgg rasulillah bul ma yedd ndax fa inna nii man alaaji abdu fii xuyaami damaa gëlëm ci bëgg rasulillah dama cee gëlëm damaa bëgg njol màkk bëgg gëlëm ci moom te sax law mu misli yedd ko mel ni man zulmun la dal oqalaay waaye ko bëgg Seydina Muhammad ñu lay yedd ngir bëgg nga bëgg rasulillah loolu nag ku am xel ku ne xam nga ne loolu jaaduwut sama am Seydi Xaaj Maalik dafa waxoon ne më dànkul aasil li yow aji yedd sama law xusta boo làqoon ilman xam-xam ci li may jooy lam talum dooma yedd hal azlu misli ndax yedd ko mel ni ma sax lam yakun nekkul bi xaraam ci lu xaraam da alaaji maay daa bëgg njool màkka bay jooy ngir bëgg rasulillahi nga ñuy di ko yedd na alaaji maay looy jooy bëgg njool màkka rek moo tax di jooy ah loolu comme xel di ko defaay ki jara jooy ngir cofeel mooy Seydina Muhammad te nag am na ñoo xam ne keneen la leen daal man gis na fi ci ño xam ni ñeneen ñu ngi leen di daanal ñuy joy bay an ko seen sago di jël li ñu am lepp di ko joxe tan ñu tan ñu koy joyal jariñu ko saytaan la yow na nga bëgg ki nga xam yalla mom la tan mu gën ñepp nga di ko ah koku nak kula yedd ku ne amul xel kon nak fa tabarakallah ñu wat nak ci alxaaji daawda macha allahu taala mu tejele ñuko ko ci seutu siduna Muhammad bi nga xamne ne jol moko feñul bopam ne ko solution bi ya ko yor kaay ma jox la loo xam ne ku jàpp ci yow dem aljanna jamono ngi ñëw bàkkaar dana yomb tabaarakallaahu booy sëggee gis bàkkaar boo sëggee gis bàkkaar boo gëmee sax bàkkaar fekk si la jamono ngi ñëw boo jàppul rek tabaarakallaahu ñëpp dem safara mu jël nag li gën muy istixfaar salaatul faatihi ba laa ilaha illallah ak jawharatu kamal jox ko cheikh cheikh na di ko jox ay njabootam cheikhu na tijaani moom nga xam ne mooy gaalu texe gi ndax sëñ Babacar daan wax naan qad jaa ana fulku najaati wa qad nafa anna rada gaalu texe gi ñëw na dàqal nañu lépp luy alkande kon nag gaa ñëw leen dugg ci gaal gi ñun nag ñu ngi ci biir gaal gi tabaarakallah xaaj daawuda joobeel gaal gi ci cheikhu tijaani تبكي من المزايا يا ويمانا إلى تبكي من المزايا بكر ويل المانا تبكي من المزايا يا ويمانا إلى تبكي من المزايا إيمانا أدي ويلنا مانا أيوة هو إيمانا إلى من بين المزايا أيوة ويلنا مانا masaya alifawi bul toqi bul yoqi awaw kuy wut yalla bu sabarul sab am ko worul tador shaykhu tijani alhamdulillah awaw hadha shaykhu rabbahu khairul wujudillah bi a'lahu mawla

نايم المصايا القوي بهمة العوب علي العطا تربية نعما مربي مريب الحق يرجع القوي وإلى المنايا طبيب المصايا يا ويمنايا بيت من مصايا علي باوي يسخل مريدينا من كاس الوصول إلى نحر المرادي الذي قد كان معوى علي باوي وإلى المنايا كوني من بيمانا إله جرد فبي من مصايا علموينا للخيل فتح وقد شاعت وراثته أتوا ختم من الرحمن والجاه علموينا للخيل فتح قد شاعت وراثته أتوا ختم من الرحمن والجاه علموينا ختم ختم كل سخد القول أتى ختم من الرحمن والرجاء أتى ختم ختم كل سخد القول أتى ختم من الرحمن والرجاء أيوة يا شيخنا أحمد تجر خين ما قال يا شيخنا أحمد تجر خين ما يا شيخنا أحمد تيدم لخيد ما قال يا شيخنا أحمد تيدم لخيد ما قال يا لم قتلنا وفوق البوفا بواني حتى وختم أو ختم خذوا الشيخ دير حتى وختم من الأحمان والجاوب حتى وختم كل سيف دقور أتاه ختم من الرحمن والجاه ويعوا أصباع الوبن في آفاق منعمين لنا أشباع الناس قرق فيه جدوى ويعوا أشباع الوبن من لا أشبع الناس أرقى فيه جدوى أشدف لأني فيه جاب ملك بيت واجي أمك ملك بيت واجي ملك بيت في أم كذاك في أم وفيه جدوى وفيه جدوى شرفنا بإمام فيه جدوى الشيخ في جنة شرفنا بإمام فيه جدوى في جنة شرفنا بإمام فيه جدوى في جنة شرفنا بإمام فيه جدوى يا مسيد الحاج mbay mi ji bi bokk naa moom xalifa Abou Kursi jël naa namu na fii jadwaawoo xaaji Mansour baaram bal xaw mi wal baaya diine Mamadou Mansour wajal ufal baayam wal baaya diine mbay Mansour wajal ufal baayam wal baaya diine Mamadou Mansour wajal ufal baayam wal baaya diine mbay Mansour wajal ufal برقدوه فالبايم فالماي تبعي زمي منصور برقدوه فالبايم خالفت برب البيت والطور ما إن رأيت فلم فينا كمنصور نجل إماما همام الحاج مالكنا شيخ المشايخ نحرير ابن نحرير ممتو برقد قلنا هيبة المنصور ولا في سائرها إذا سابق الأقوام يوما يوما إلى العلا يكون يكون إماما إماما الوراء والوراء والوراء والوراء من منصور جعله فالباء ينصور زنبي منصور جعله فالباء ينصور منصور على الناخلي فيه جدوى أيه فيه جدوى وفيه

Cheikh Mate yaa mooy sangu lawliyaay mbooleen raw ci yàlla tëggan leen rëy wér ci dem ba ci tey شيخ رجام مولا سجي قام قام دما لنتدين دم بكتي شيخ ما رتجاني من كل ما انت ولاية إلى تكون قل ما لك باي شيخ ما رتجاني شيخ قياس انت ما قام آه. نعم. أبوا من قل ما لك لي شيخ ما رتجاني بايخ طريقة شاتم هو شاتنا بي كي دفنعي هو شيخنا قل من دور وقل من دور سويدي هو شيخنا أمجم moo di naari yiru la bi nañ day wat magay hmm. su di reedu jekku su dee reedu kekku su dee war di daanu su dee sanni may tabarakallahu macha allahu taala cheikhuna tijaani kenn du moom mu ngi noonu yàlla nañu yàlla tax si barkeem te yàlla def ñu ay dëgg-dëgg taalibe cheikh ci daraje sayduna muhammad salaa sallam tabarakallahu di nuyu suñu jigéen soxna su baax ajaamati siise tabarakallahu di yaayu daara ji macha allahu taala nekk nit ku baax koo xam ne nii wërsëgam fa tabaarakallahu yàlla daf ko xiir rek ci daayira yi macha allahu taala ci jumaa yi ci nit ñu baax ñi macha allahu taala yal na yàlla defal ko jàmm ajaamati siise maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la ñaanal baax yal na yàlla guddal sa fan yokk sa wér yokk sa teraanga sàmm la sàmm sa njaboot yëpp tabaarakallahu sama xarit sama soppe sama wëllëre nekk koo xam ne ku may jàppale la lool yal na yàlla defal ko jàmm ci daraje sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam hajjaw dafa tabarakallah ñu ngi lay bay kaddu nga assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw xana rek di nuyu rek eh, suñu eh, grand frère yi suñu magi yi mhm. ku ci melni ni xaj mbeng ak aliou mbeng mhm. ak seeni soxna mhm. wa di nuyu waar rek eh, sama yaay ajaratu xujja ñang di ko ak sama bàjjan xadi mbeng waaw di nuyu suñu sama ben yaay bu baax dëkk ba ñag di ñukay wax mère abi waaw suñu yaa suñu yaa Abiba ñu ngi koy ziar baax a baax a baax waaw ak suñu yaay fii ñëpp rek yàlla xam ne lu bàyyi woon kenn bu limeere dañuy dañuy juum waaw di nuyu tamit sama aljana ndax moom moom mënu ma ko ñàkk bañ a nuyu ndax moom moom mooy sama aljana waaw mooy sama mooy sama soxna maa ngi koy nuyu baax a baax di koy ziare fii nii ma gën nii foo foo baax fii hmm. ah moom moom moo fi jaar ah. kon nag kon nag faa mu béggal ko waaw di am kontaan rek mbégte bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp rek képp kuy képp ki ñu bëgg rek mm. ñoo leen ñoo ngi nuyu baax a baax di la ziare di jox ba baax a baax di nuyu ñëpp waaye kenn wax dëgg yàlla mm. waaw di kontaan kontaan si yow bu baax a mm-hmm. baax mm-hmm. ndax euh, mën naa ne fii mm-hmm. miin nañ ko lool te xam nañ ko tamit aussi ndax euh, yàgg nañu ñëw si rajo bi mën naa ne bii mooy ñett yoon ñi fiy ñëw kon loolu xéwal a sant yàlla la waaw di nuyu suñu suñu sëriñ rek Abdou Aziz euh, Seck moom bu Moussi TV waaw ak Habib sàll ndax moom suñu kilifa la tey jii nii ni bu ñu demee tey jii ba yegg fii yàlla ak moom bokk na ci ak Abdou Abdou Abdou Khadir Dia ba mhm. Jolof mhm. waaye ñu ngi koy di nuyu mhm. waaw di nuyu tamit euh, sama gars yi may liggéey ndoog fee rek ah, ci béréb liggéeykaay ba ah, ku ci mel ni maam daam waaw di maximan di ko ziar baax a baax baax ay ñoom Souleymane ñëpp rek yàlla xam ne ay ñoom As Ndiaye bàyyi nu kenn kon bu fekkee mu jox kàddu gi xaj Cheikh tabarakallah Cheikh Tidiane tabarakallahu jërëjëf Seydina Aline Faye wax dëgg fa yàlla amati nañ mbégte lool tabaarakallaahu ci jotaay bi ndax lépp Seyduna Muhammad la waaye lépp Cheikh Seydou Ahmed Tidiane la mhm. kon nag wax dëgg faa la ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a mhm. baax di ñaanat yàlla yàlla na yàlla yéegal télé bi ca kaw a kaw a kaw a kaw fa ñuy dégg télé yu mag yëpp yàlla na ci bii bokk ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu sunu caméraman bi tabaarakallaahu moom it ku am pasteef la tabaarakallaahu ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla taxawu ko ba yàlla dénk ko lii moom it ci barke yonent yàlla Muhammad kontaan ci ñëpp bég ci ñëpp mhm. wallaahi alazim bu nu limee yal na yàlla nangul ñu jotaay yi ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, tabarakallah macha allahu taala waaleykum salaam wa rahmatullah naa dañuy nuyu rek waa groupe sopp Seydina Muhammad bu soxna Aïda Cissé bu baax macha allahu taala ñoom dañuy topp macha allah ci émission yi waaye di nuyu waa groupe sopp Seydina Muhammad bu Adja Ngone ak groupe sopp Seydina Muhammad bu soxna Aybatu Mbay ñu gën koo xam ci sopp nabi macha allahu taala wa الله ñoom ñëpp dañuy topp ci émission yi ñu ngi leen di ñaan yàlla seen cofeel ci rasulillah yal na ko yàlla gën a yokk ci daraje nabil Moustapha ñu bëgg sayduna Muhammad nag tabaarakallaahu góor yi ma tudda daal ñoom ñëpp dañoo bëgg rasulillah jeex tàkk ci moom fa tabaarakallaahu di ko liggéeyal rawatina soxna Ayda Cissé moom macha allah yàlla di ko xiir ci daara yi rek tabaarakallaahu macha allah yàlla na yàlla doon ko jàmm bu baax fa tabaarakallaahu di leen wax ne rek seen émission mu ngi émission Madhoun Nabi fa tabaarakallaahu seen télévision Safina TV ca kaw ca incha allahu taala alxames gu jot ñu ànd ko yéen di ci dalal ay ndaanaan ay tàggatu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci gox yi fasanti ko macha allah kon nag mu ngi noonu seen émission la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu